jëf euh, mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek kenn ku nekk euh, swàcc waay amaat lii di kontaan ak mbégte bu baax nag fu seen dalaat beneen kilifa di kàngam xam naa nag doonatul ku ñuy présenté ti ndax euh, kii di Serigne Mourtala borom feex jot na fee jaar wax fi révélation yu rëy yu am solo yoo xam ne dañ koy waxtaan saa su nekk ci actualité jëmm ji ma dalal waxoon na ci kaan bi doxoon ci diggante euh, mat Sénégal moo Gambie tollam ci waxoon gis nañ ko dinañ ci yaatal bu baax a baax waaye élection yi nga xam ne dëgmal nañ ci dinañ ci yaatal bu baax a baax kilifa gi laata may def leen bàyyi la nga nuyoo daam loo xam ne dab nañ tey suba gi mu di waajur bu jigéen bu Wally Seck nga xam ne ñëpp xam nañ ko ko di ko koy jaale di ko koy masaw baax a baax ndax dafa dëddu euh, lan nga ci sànni comme kàddu aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahimi waxablana bi xaq ba il basmala wa siini wal miimi suroral kamala waxablana bi baaxi fi daarayni maa yadfaxul xaarayni wa naarayni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi siyaare ñëpp tey baal xaq ñëpp tey baal ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàgg loolu te wér mhm. suñu Cheikh maa ngi lay nuyu ak sa waay ji nga àndal la jërëjëf acca li ma la laaj ci Wally gannaaw bañ ko jaalee yaay ji yow lan nga ci bëgg a sànni comme kàddu waaw Wally Seck ñi ngi koy jaalee yaayam bu a baax te di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko te xaare ko àjjana mhm. mm, waaw li may wax nag euh, si wax jooju leen dong la mooy Wally Seck jamono jiñ toll nii mhm. si ginnaaw génn naa fi wax la may wax. li ma teg si bët. Mhm. muy wàllum coow lu bëri lu amoon si ginnaawam. li may wax nag leen dong la. muy mhm. Wally Seck. Mhm. su ko yàlla dimbalee ba événement bi jàll si jàmm ak salaam. na génn dem wuti gàllaaj te jóg si boppam. Ah, wuti ñaan. man nag. dama dut xóotal si lenn. waaw am na loo xam ne xam naa ko te su ko waxoon si site bii. Ah. ñëpp dar seen gimiñ. waxoo jàmm de dara du ma si wax dara. loo gisati noonu li ma li may mën a wax te man kaa wax mooy. Hmm. Wally seek bu liy jàllee. na ñëw ma samp ko dëj ko. waaw. ba Cheikh barke borom Touba ku ko laal day faatu. billaahi jamono gi ñu ne daray gàllaaj ñi amu ko. tey foofu laay waxta foofu laay yem si wax ji. Uh-huh. bisimilah ñu jàll sa leneen. acca kon mu ngi noonu jërëjëf sëñ Basirou acca euh, bu leen fàtte dinañ waxtaan ci match bi dox ci diggante Sénégal ak Guinée ndax jëmm ji am na lu mu nee na bii yoon dinaa ci gën a duut baaraam wax leen kiy gagné waaye dina leen jox score li nga xam ne doon na loo xam ne lu jafe la acca lii lépp laata ñu ci ñëw damaa bëgg nga ñëw ci liste xaar ak seet ñaat yi bëggoon naa xam lan moo leen wutale seen différence lan la ak ci bën nga ëpp loo ciy jàppale jaam yàlla yi alhamdulilah suñu seex Seck Sour moo wax ne seet ak mm-hmm. liste xaar mm-hmm. su ma gisee man réew mii ku ma ko fi dàq man. waaw ma bàyyi lii ma nekk man teg ko ba ñëpp xam ne teg naa ko. Mhm. ma dem seet la neen. alhamdulilah seet moom dama see mhm. amul moroom waaw waaw seet moom danga may woo di ma seetloo ma ne la teel ligne bi bul coupé. waaw fa nga taxaw laa lay wax fi mu doon. Mhm. dàll ya nga sol. mbub ma nga sol. jafe la nekk sa poos. tarkal la kuy sa waajuru góor. kuy sa waajuru jigéen. ban année nga judd. waaw hôpital boo juddoo. kañ la la ngénte. xar mañ rey na mu mel. loolu lépp man dama la koy wax. <laughs> waaw waaw nag seet umu si morom. déedéet bisimilah. macha allah jërëjëf acca kon ñu dox ba léegi wéyal jàll ci beneen ponk dama ñëw ci néew kàttan mu di impuissance impuissance sexuelle nga xam ne li ci ëpp ci ndaw ñi lañ ko ràññee ko nan nga ciy jëflanteeg jaam yàlla yi. waaw wax dëgg fa yàlla moom néew kàttan moo umu si morom. waaw. wax dëgg fa yàlla sunguf si ma yor. waaw. adduna nag jàpp naa ne jamono gi ñu toll nii sëriñ boo mën a dégg si kaw suuf. Mm-hmm. koo gis mu yor lu mel nii si man la ko amee. waaw. Mm-hmm. sunguf si. mu ngoog koo mën a gis mu yor ko si adduna ak ku mën a doon. waaw si man la ko amee mhm. sunguf si bu ma la ko joxee boo ko naanee waaw cinq heures de temps bu la neexee nga koy seeta doo daanu nga ne loolu kay man maa wax cinq heures de bu ma la ko joxee bu la neexee nga sëy ko doo daanu akbar tarkal la kon nga noonu acca leer na dégg ngeen fa sëñ Mourtala borom tawfiix daanele acca waaye dama ñëw ci ñi nga xam ne dañoo bëgg tukki te duñu waxee tukki il faut say këyit euh, doon yoo xam dinañ légal euh, nan ci ñaanal nit ñi xam ne am nañ ci yaakaar alhamdulilah sëñ Cheikh mhm. chaque jour moo wax ne tukki ak am ay milliards. waaw moom ndox mi ñuy naan laa yemal si defal ko nit mu am ko. du dara. waaw ñi dem si gaal gi di fay ay 500 mille ay 1 million chaque jour moo xam nañ ko bàyyi. ku dikk si man ma jàppale la ngir yàlla. Mm-hmm. loolu ñi may déglu xam nañ li may wax. waaw waaye tukki gi ñuy mébét di ko xalaat fi ñu toll. di si ñàkk ne mën naa ñàkk. Mm-hmm. ku dikk si jàppale. Euh, li may si wax li gën a néew sax te mu gàtt moom leen la. Mm-hmm. li ma lay jox moom bu ma la ko joxee nga takk ko dem ambassade. waaw waa ji jàkkaar la yow mayu la mhm. soo ko wanee ginnaaw moom du fanaan <sighs> allahu man dama wuteeg sëriñ si yu bëree bëri siñ seex mhm. man sama mbir dafay ami garanti oh. te àdduna nag nit oh. du ma fi jox dara lum rëy rëy mhm. te fekk na umma ko àdduna lu ma nit mën a jox ak lum rëy rëy rëy dañu jul fekk ko fi kon nit ñoo jaaxal si ñun alal tarkal wàllum tukki daal ku ko bëgg mhm. ak ku mën a doon ak foo bëgg a dem mhm. soo diggee si man di nga am macha allah jërëjëf acca ñëwal ma ci rab ndax ku jóg moom di nga ci wax ndax gàllankoor ya nga xam ne li ci ëpp moom lañ ëpp liñ ci remarqué mu def ko ci rab lan la mën a yàqal nit ki loolu ci mën a baaxee rab moom wax dëgg fi yàlla suñu Cheikh daa baaxut mhm. te nag bari na ñoo xam ne am nañ ko waaye li leen sëriñ yi di laaj moom la jut am ba moo tax duñ si mën a jublu man nag njaareem li ma wax chaque jour. waaw sama lépp fa la nekk. Jurbel. Mhm. ku mën a yor rab. waaw wala jinne mhm. ak lu ma a doon boo dikkee ma dindi la ko ba set. te dindi gi du weesu juróom-ñaari fan sama kër laa lay bàyyi rek. teg la fa. waaw sama mbokk na dem ñibbi. Mhm. juróom-ñaari fan yi ma la wax bu jotee tarab yi dañu si moom. loo ma jox lu nekk boo dikkee. Ah. ma tegal la si un million wala cinq cent mille. Ah, waaw may ko addiyee wala rek moo koy def. bisimilah tarkal la. acca ñëwal ma ci euh, wàllum juboo xaw ma jubo xaw ma ñoo xam ne mën nañoo juboo di xuloo seen biir wala duñ neexoo nga mën a fexe ba ñu doon benn. waaw mooy ñi nga xam ne jëkkër ak jabar yi. waaw góor ak jigéen. bu dee ñoo xam ne dañoo nekk si seen néegu sëy te chaque jour dañuy xuloo ko xeex rek. Mm-hmm. bu dee ku jigéen ki na ñëw loolu man maa si aay bu dee ku góor ki na ñëw loolu man maa si aay. waaw du fi nekk naan ko demal day toog. jox ma turu ko jigéen ki. Mhm. ñoom ñaari bëgg ñu juboo ah. ma defal ko ko mu woo ko moom ko jigéen ki. Mhm. woo ko sensi na ko foo nekk dama laa nam mu nangam nangam ñëwal. waaw oh. bu demee dootu dégg di coow bisimilah. tarkalla acca ñëwal ma ci euh, ndombo yi ndombo yi nag suñ leen waxee ndombo gu nekk am na ci li muy dox bëgg naa nga ci bu baax a baax. waaw alhamdulilah suñu seex. Mhm. yàlla dafa dogal ndombo li ngay gis. waaw daanaka xarum benn melo laa ko liggéeyee. <laughs> xar mi rek mi ngi jar cent trente mille. <laughs> te li ma si awloo ak la ma sa def ñëwagut mhm. ndombali du ma ko jox nit mukk mu takk ko waaw six mois amul mhm. alal mhm. billaahi wallaahi wa taalaahi waaw lu ma mën a ma tegal ko si lu toll na may ko ko barke Cheikhul Xadimi ndombali waaw du ma ko jox nit mu takk ko mukk six mois amul alal kooku kay moom boo mu tekk ndombali moom dem xooli leneen moom nga xam ne àdduna moom ni ñu koy dimbali waaye dimbali kenn mu ko ko billaahi acca ma ci beneen bi ci lan lay dox waa bii si wàllum sàmp doomu aadama lay dox ba kenn du man si yow dara waaw waaw bu ma la ko joxee nga takk ko. waaw néew ma la nit jug dem ba sëriñ toog de joxe sa tur di soo ko faat de. Mhm. xam nga lan laa la may. waaw mu xalaat la dong di wàcc escalier bi day dem du yegg. waaw billaahi wallaahi wa taalaahi. tarkal ak mu goog acca li ma yéem ci ndomba yi kenn ku ne gis nga ndomba ba ci la muy dox waaye gis nga na nañu mel seen melukaan acca ñëwal ma ci kànnaar yi kànnaar yi ah xam naa ñàkk koo wër am daal wóorut. waaw njëriñ waaw. kànnaar lii ngay gis. Mhm. daanaka bi may ñëw di def émission bi sax waaju ma ko. waaw alxames gi jàll. Mhm. dama gént sëriñ bu mag. kilifa gu mag goo xam ne bu ma tuddoon. bu ma mhm. la waxoon tur wi. Mhm. nga xam ko. waaw àdduna jàpp naa ne jamono gi ñu toll nii moo si gën a siiw. waaw te nag ku yor dara moom moo tax nga yor ko. kanaar gi ngay gis. waaw kanaar gi. billaahi wallaahi wataalaahi li tax mu jox ma ko ci noob noob kese moo tax mu jox ma noob. Ah, te kilifa bu mag booboo la ko jox. tarkal la. dafa dem ba xam ne. sëriñ ñi ngay gis àdduna. ñëpp maa leen daan ñaanal. sëriñ boo mën a tudd ak ku mën a doon. Mm-hmm. laaj ko kan mooy Mourtala. allahu akbar waaw nag ba xam ne sëriñ yi moom amatuma seen jot. Mm-hmm. bëggatuma ñaanal benn sëriñ. waaw léegi ñi ma jublu ñaanal leen mooy ndaw ñi. ñi nga xam ne dañoo am ay tolof tolof. Mm-hmm. jàppale. loolu am na solo. waaye wax naa ba sonnoon na benn sëriñ. sànq ñi may woo ngi dëkk Touba. waaw ñi am na ñoo xam ne ay ñaseen lañ. am na ñoo xam ne ay murid lañ mhm. am na ñoo xam ne ay xaadir lañ am na ñoo xam ne ay laayeen lañ mhm. te bu ma lay waxoon nga xam leen ay kilifa yu mag lañ ñaan kenn mu leen si yoon yi waaw waaw te soxlaa dara si man la ñëw bu ñëw du faju <laughs> kànnaar gi nag ki ma ko jox mhm. du ma tudd tur waaw waaw ku bëgg noob waaw noob gu assuré waaw xam nga damay dégg sëriñ yu bëri naan 24 heures ñii naan juróom-ñaari fan waaw man xam si lan laa ko nopp waaw waxtu allahu akbar ci waxtu bal bi tàkk da ngay dikk toog ma noobal la waxtu bu dee ko jigéen ki ngay nopp moom moo lay woo téléphone na la diggante bi nga doon wax am na bu dee ko jigéen ki moo ko bëgg waaw ku góor ki moo lay moo lay woo carrément la nga la nga bëggoon am na tarkalla bisimilah jërëjëf jërëjëf sëñ Mourtala borom tawféex kon acca mu ngi doon ñoo ko déggandoo lépp ñuy waxtaan di yaatal képp kuy taataan rek mën a jëlee ci lii di njariñ acca ñëwal ma ci jubóole ay nit waaw jubóole moom sëñ bi daa bëri façon mhm. nag man amu si nawle wax dëgg fa yàlla waaw am na loo xam ne bu ma la ko joxee mhm. nga raxasoo ko bu dee sa borom kër la wala sab xarit la ak ku man a doon. Mhm. soo ko joxee loxo incha allah dootu la bàyyi te faaw. waaw wallaahi la nga siimi. te loo ko wax dina ko mhm. def. Mhm. boo ko taree dina bàyyi. macha allah jërëjëf nag euh, bëgg nañoo am ay milliards samp pour mu am milliard. jëfewut ah. nee naa ma euh, samp nit jox ko ko. Mm. moom naanum ndox laa yemale. allahu akbar. julli ñaari rakk sax gëm naa moo gën a jafe si man. jëfewut. waaw waaw xaalis jëfewut. ku ku ñemee ak koo mën a doon bu amee fit te ñëw si man. te jaral la. billaahi wallaahi wataalaahi daa six mois te amoo alal mhm. billaahi ma dagg sama kurus gi allahu akbar waaw waaw loolu de leer na mu goog euh, lii nag yàgg nañ ma koy yóbbante mooy ñoo xam ne dañoo nekk ci place ku ci nekk bëgg a jiite euh, la fay demee a ah, loolu moom sunguf si la rek waaw moom moom dëgg fa yàlla sunguf moo la ko joxee nga muus si waaw ña toog sa place ñoom ngay wax ak ñoom ñu lay tontu mhm. sallahu du man ñetti fan ñoom ñëpp ne la bàyyi neen liggéey bi jiite mhm. yaay wax del def di dindi ay suy ak yooyu yëpp nekkuma si dama lay jox naa la mokk ko boole kaa ndox jàlle la ko mhm. nga jàkkaaroo ñi nga war a jiital di wax ak ñoom par kenn kenn ñoom ñëpp ñooy mujj ba doon ko moom place bi sax dina yëkkati jaay bi jox la ko ah, waaw léegi dama bëgg nga jiite ma macha allah te loolu nag àdduna man dong may sëriñ bi taxaw di ko wax doo dëggaat kenn ku ko wax mhm. bisimilah aja koo xam ne dafa njàccaar maanaam ku silmaxa dab bëgg ñu defal ko ci ñaan loolu moom jëfewut mhm. ku ko judduwaal daal mënu ma kaa faj. waaw waaye koo xam ne def na ko moom bu dikkee juróomi dindi ko. waaw incha allah ku judd mu ta mënta wax. ku judd koon mënta wax tam bu dikkee ma dindi ko wax dëgg fa yàlla. Mhm. moo ko ko dabak ñaar yooyu moom bu ñu ma dindi ko waaye gumbalaane. waaw koo xam ne da kaa juddaal mënu ma kaa faj. kum dab nag mën kaa faj. Mhm. waaw bisimilah. acca jërëjëf aca fa ñuy jeexale nag bokk na ci ji ma dalal tey euh, yaakaar naa ne gis ngeen ko jot na fee jaar ma ko doon laaj ci match bi doxoon ci diggante Sénégal ak Gambie kan mooy gagné mu ne ma Sénégal mooy gagné te ni mu ko waxee noonu la amee Sénégal moo dóor Gambie euh, ñetti bal ci dara euh, lii bi nga koy wax dañ laa dee wala lan la aca dañuy dem seetaan VAR li nga waxoon ba pare ñu dëgmal match bu am solo mu di Sénégal ak kii di seen mbokk yi mu di waa Gambie match bi nag coow li fi mu ne nii bëri na. si jeex ñu kan mooy jël kan mooy gagné ji match boobu. Sénégal bi Sénégal day gagné. bi Sénégal day gagné loolu kay man maa wax kañ la ñuy bëree kañ la ñuy fubal. altine waaw. altine soreetul. sëñ bi jël nga engagement de. suba la ajjuma. Hmm. samedi dimanche altine. waaw ñeenti fan mos des xaw ma ñetti fan. day jël day jël da kay gagné. allahu akbar. Hmm? wax. kon baax na. jërëjëf sëñ. Mourtala wax jii nga waxoon nii laata ñu ñëw ci match bi dox mardi ana nan na fa demee ba nga wax wax jii nii ndax dafa am ni nga ko waxee noonu lañ ko gisee lu xew. waaw alhamdulilah man suñu boroom daanaka xalbatul basir laa am. man daanaka li war a ñëw un mois ci kanam xam naa lépp. tarkalla dëgg fa yàlla. waaw waaw gone lañ nag waaye am na lu suñu borom dénk. Mhm. waaye da du lu ne. waaw mën a toog ci plateau di ko wax wala dara. Mhm. man samay mbir dafa nëbbu ci saxe nëbbu ci baatin. waaw max boobu nag dama see waxoon li ma ci wax. Mhm. mu demee noonu. man chaque jour wax ne àdduna ak sëriñ yi. waaw nit ñi. Mhm. ma ñëpp nangul te xam ne dogalub suñu borom laa. ma wax lu nit du dindi. waaw dama lay wax ne la max bii di ñëw. waaw kay gagné. Sénégal Guinée. kay dugal bii bi. waaw ak ñaati bii lay doon. bismillah ba premier mi lay doon. waaw wala deuxième lay doon. bismillah Cheikh sëriñ bu ko man kay na génn def. waaw li kay def de moom. wax dëgg fa yàlla. yombul de. sëriñ bu ko man mhm. day génn lii mu wax. waaw mu génn wax maa la ko wax. ba dëgg yàlla foofu laa wuteeg nit ñi suñu jeex. maxi bi nga xam ne nag moom lañ dëgmal. waaw talaata mardi incha allah. muy talaata. Mhm. contre Guinée ak Sénégal. waaw. xam nga bu njëkk ba sax damaa waxoon ne buñ ma woowee ma wax leen saraxe dañuy gagné. Mhm. bii nag yooyu yëpp dama si dul fekk wax dëgg fa yàlla. Mhm. bu amut dañ ma yóbbu vaar. waaw nañ ma indilee vaar bi ma am ci ndam. bu loolu amul dañ ma yóbbu vaar. waaw oh. li ma si wax nag moom mooy leen la. Sénégal dina ko gagné. Hmm. te kenn du ko dindi incha allah rabbi. tarkal la Sénégal. waaw dina gagné ki nga xam ne moo di Guinée. ñoom la ñu am. waaw talaata. soreetut suba lan dimanche. waaw altine talaata ñetti fan moo des. lañ hmm. dox ñu dem. score bi ku ko bëgg xam da lay woo wala nu muy def. dafa am ñoo xam ne. Hmm. suñu borom da leen a bindee bët wu aay ak làmmiñ wu tey jii bu ma ko waxoon fii. buñ ko déggee rek loolu mën naa fatu. waaw mën naa andu. loolu laay bañ. waaye daal xam naa si ne a gagné. waaw te mu jaral la. waaw dinaa la wax ñaata bii lay doon. tarkal ak kay dugal. waaw ba xam première mi lay doon. wala deuxième mi lay doon. allah akbar jërëjëf aci laata ñuy jeexal politique Sénégal ak ni muy doxee lan nga gis ci président Ousmane Sonko. waaw loolu moom sëg moo ko si jeex. Sonko bu doon maay moom na dallu te noppalu. te génn si wàllum politique yi de ba beneen yoon. ndax lan noonu. Sonko mun a bokk. Ah. wax dëgg fa yàlla ñun kenn gënuñoo bëgg Sonko wax dëgg fa yàlla. waaye dëgg bu amee wax ko rek. Ah. Sonko moom mënutoo bokk jamono gi ñu toll li yow. <sighs> dégg naa tey la affaire war a leer. Mm-hmm. du bokk nag moom. tey la war a du bokk. cëy. xaw ma daa yabale ba si jomaay ah. fay. Mm-hmm. xaw waaye du bokk. <sighs> man samay mbir ma koy tënk si lu leer. waaw Macky Sall dama kaa woo jokkoo moom si lu leer ne ko. Sonko mii. xaaral nga ne da woo kan jokkoo ak moom kan moo la woo jokkoo ak yow. Macky Sall pour mu leer waaw. laa jokkal téléphone. waaw. ma ne ko Sonko mii ngeen tëj ci bi. Mhm. wax dëgg fa yàlla tànnal fa suñu borom la. te nag comme da ngay wàcc kaneen toog mënoon kaa bàyyi mu bokk rek kooku wàccal ñu xam ne mhm. la. allah mun na a bokk. Ah. a bokk. waaye Bassirou dina bokk. Bassirou Diomaye Faye tamit mënut a bokk. Ah. waaye nag ku suñu borom jiital nag. ñu xam ne kooku la jiital rek. bañ fee nekk di coow Macky ki mu jiital dina jël réew mi wala keneen a koy jël yàlla ki mu jiital da moom laa gën a am yaakaar damaa waxoon ay jamono amu si yaakaar waaye ndax xamal tax ma am naa si yaakaar mooy waaw su bëggee jug pour def dara hmm. moo ñu jiir ñun ñëpp dara mënu ko kàttee def hmm. su dee Amadou Ba la bëgg a fal hmm. ku mën a teefal moo jiite réew mi moo ñu yilif nañ ko nangul baat boobu adduna méttiwut de nit ñi ñoo ko bëgg a métti rek kenn ku nekk sa lam nekk boo ko si bàyyee rek daanaka lépp ay sotti Sonko la ñëpp àndal loolu ñëpp nangu nañ ko kilifa diine kilifa aada ñëpp moom lañ àndal waaye suñu boroom dafay dogal benn mbir boo xam ne faaw jaam ñi xam mbir moom lan la. Mhm. dem nañ ba xam ne Sonko mi mënut bokk. waaw nañ jéem a dox si leneen. leneen. adduna bi jeexagul. tey. élection yi day ñëwaat ñëwaat ñëwaat. beneen bis bu dikkee mën naa bokk micro bi ci mu kook beneen bis bu dikkee. Mhm. mën naa bokk loolu jëfewut. nañ ko bàyyi bii mënut a bokk ñu fexee nañ ko libéré mu dem këram. man ñi ko jege bu ñu jigee si man. Mhm. moo wax yoo xam ne. suñ ko ko joxee. waaw du fanaan si koso bi. mën naa dem këram ñibbi barkalla te boobu Macky mën na see mën na see a nekk di di am leen lu mu lii hmm. moom sax moo jabale kaaram na bàyyi mu dem waaye boobaa na bàyyi lépp te toog hmm. xam ne mënutut a bokk daal mënutut a bokk hmm. ñu xam ne demal la mënee dogal loolu daal mooy li jaadu man moom laa gëm waaye nag gone gu si moytuwut 2024 gi sa bakkan mën a see rot ci élection gis naa loo xam ne jamono gi ñu toll ni moom doy na waar lool ci doy na waar kon ñu bala nga tàggatoo ci lan ngay tàggatoo tey li may tàggatoo daal mooy mbokk jullit ñëpp mhm. damaa gis démb si mun taxaa xum barki démb mu génn joxe ma la bul faussé damaa bëgg nag mboolem jullit boo xam ne suñ tubaa nga yaakaar mhm. lii suñ mun taxaa joxe nii nga def ko farata ndax suñ mun taxaa doonul gone mhm. bu mu wax lu nekk am na fu mu ko teg te nag naka ñëpp jàngal ay jaalibatul maraaxib defal ko ko addiyee suñu borom yàggal ko fi loolu te wér ak mboolem mu nekk Sénégal kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf jërëjëf jërë ngeen jëf